sa baay Abdoulaye Thiaw aj na siyaari moo di aas demul siyaari ngir turu aas ay darajaam jiitu naas minal xadimi rabbana baay Abdoulaye Thiaw ture li ngay sa dub yoneen di taawu Seydina mi gën sab taxawaay la yaa fi man amoo moroom baay Abdoulaye sa baay moo defar diine ji bas Thiaw laay sa baay moo defar diine ji ba caw laay moo defar jàmmalaayu Seydina Issa Roowalaay ba caw laay sab liggéey defe na ca Cambérène si Seydina Issa Roowalaay ba caw laay sa maam li maam laay moo wootaaji boo daaya laay yaa maxsaral insi wal jinni ñi rasuulu ñu mi ñuy déglu imaam nee ñu déglu ndax ñuy commencé tudd bi lay laay laa laaw lay سيدنا رسول الله لا إله إلا الله لا لا ak sikar ak sikar mi leen xam لا إله إلا الله لا إله سيدنا رسول الله لا إله إلا الله لا لا Seydina Rasulullah la ilaha illallah mbooloo mi ku góor ki imaam nee na tudd nañ ko Seydina Mouhamadou Rasoul alayhi salaam la Ndiaye ñi nga doon fekkoo leen fi. Mouhamad gën di bindeef Soye. dama ni Modou dañoo yóbbuwoon wargal ñii dana jox seen micro yi ñoom loolu rek doy na moom la suñu borom doyoon ba mu neex ko mu jël ko wàccee ko ab saar ni ko wan na jëmi Isaaxa maa dalla saahibukum wa maa yantiqu anil hawaa bi nga màggee baax nag askan bi nga bokk lu ci kenn gënu mu la li fi sa maam bàyyi fexe nga bëri fi yow boo yegsee tubarkàlla maa sha Allah ñun sax amatuñu kàddu wala kàddu bu baax bu nu koy wax yow ñu dañ ko war a ndax sa maamay rasulillah sa maam ni maamula nit ah, kii nijaayam ci yoon bés bi bu ko fekkoon lépp neex ndax moom indi fii nijaay moom indi mi alaaji Njaga Caam yal ko yàlla xaare àjjana saam di sama xarit di sama lépp gisoo ngénte ni mu ci taxawoo kenn ñun mooy suñu kii mooy Mama Gaye mooy suñu lépp bu nu banqué moo ñu jox xaalis ñu feebar moo ñuy faj luñ soxla moo ñuy faj yal na ko yàlla dafa jàmm kii magu saam la kii ay Baye kii matt ku ne xam ne matt fay surtout limaam dafa bëgg limaamu te dafa baax bal laa ngi nii sama ami daa faa la woon kii nag sama papa sama papa kontaan rek sama xol seet na guy macha am naa ci mbégte lool am naa ci mbégte lool gën gi min def lañ ko tuddee Seydina Mohamed ju doom ju jigéen gi ñu tuddee ko Ajaratu sama bopp yàllaa ñu boole man ak moom depuis léegi dara ñaawul yàlla ko yàlla defal jàmm mosul ko ci seedaane te xam ne lii la rek àdduna moom amul benn solo bis ku ne bisam nga am sa bis bi yàlla doon ay bisi bis ci barke Seydina Mohamed yàlla la yàlla defal jàmm kontaan nañ torop noonu ba ñu bari de. waaw. Modou Mbaye li ma ko nar ndawtal yaa koy wax. man ndawtal bi yaa koy annoncé. maa koy annoncé léegi. waaw ndawtal bi. sa grande la lal de. lal kuroko. turandoo yi mën naa bari de. dëgg la de problème bi ci dara naa tàkk. xaaral ñëw dañuy wax toogal toogal toogal ñu waa waa Ndiogu Mbaye ñu toogal

Moussa kay ma nga ma sa micro bi ah. ah Moussa kay ma nga ma sa. c'est bon téye leen aw leen ko téye nag mënuma téye sama téye ma nii ngir yow. c'est bon. ayca ba tey ñi man kay ma demal moom maa wax. Eh? pare wuy ma parce que doo kii wax ba pare xam nga ñoom dañu am ay normes waaw damay bañ ma frustré xaaral wax wax ba pare d'accord nañ ko jël wax ba pare